EDK ak KPAY Jolof ci Chicken boisson bu neex bi di Mandamori AM ak Electronic Corps ak marque climatiseur am bu bees bii di indiro ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li bu ngeen duggee YouTube ñu ngi fa en direct ngeen mën a gis sañse oustaz Maodo Faye tey ndax saf na sàpp waaw kon n'est-ce pas Mbacke yaa ngi confirmé waaw xam nga dama doon bës sama xol rek bañ koo wax déet mënoo ko bañ a wax nag xam nga nag man sax man li jàppee ma ko sañse xanaa kay Nicolas moo baax rek waaye yow moom dañ la lu wóor ci wax ji ndax yow yow bu ma solo lu fii ne da ngay xaw a kii fii ne mooyu man boo wax boo sañ fii ne fii ne Nicolas wax lépp maa ngi gis ngay xool fële fële damaa jëlale ba sonn da nga cee mën dara nag da ngay na ko dogal suñu borom Moodu lalal naa la

fais-moi une Sénégal man la bay di bi def bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf. aywa jërëjëfati Beydi Bidé bu bees 98.5 le choix de la différence c'est la première radio d'information du Sénégal bien le bonjour chez vous bienvenue chez nous la première émission de Sud FM dellu di leen nuyu di leen bégeeg di leen ziar ak di amati bu baax a baax nañu koy amee suba su ne bu ñu xëyee. di àndandoo ak yéen à travers seen émission ndekki li émission nandite yi yéen ñi nekk Dakar waane tam biir Sénégal parce qu'on le sait tous Dakar n'est pas le Sénégal n'est-ce pas j'espère que vous avez passé un bon week que vous passez un bon début semaine mbégte la ñu dalalaat suñu gaañ yi euh, équipe technique équipe digitale bi ma àndal lépp jàmm seen côté ok euh, yow defal ma nii jamal ma kii Cheikh Omar Ba ñu seen ko foofu très bien voilà yow nga jamal ma nii euh, ndooy ñu seen ko foofu très bien léegi bu ngeen jamandoo yéen ñaar ñëpp seeni i xam nga kenn dootuñu gis voilà pour muy clair léegi euh, ki ci digg bi nag mooy Alioune Barara Socé euh, yéen nu ngeen di def ba ñu gis Socé léegi xam nga loolu itam problème la bu ngeen muusoon léegi ngeen trouver ma solution rakkin cat si vous étiez intelligent et si seulement voilà rakin cat <laughs> vous êtes intelligent <laughs> macha allah merci beaucoup sama gars yi maa ngi leen di ziar euh, léegi nag mën ngeen ñëw ci ci star yi ñi nga xam ne euh, ñoo am ay fans club ay superstar la ñu ñoom la gars yi bëgg a gis. Hmm? bëgg ñu gis yéen yéen parce que yéen vraiment euh, c'est juste pour vous comme ça mais les superstars ils sont là commençant par Oustaz maro fay sañse bu fort bi maa ngi la ziar di la bëggee bi sabadoor bu fort te saf te nice xanaa animateurs yi du ñu wax macha ñoom. macha allah <laughs> ah, ñoom la ñu mën a <laughs> ñoom seen benn animateurs yi ñoom seen yoon. macha allah waaw ah, macha allah. bon d'habitude ah, non I know I know <laughs> je comprends parfaitement bien. ce que voudrais dire. walaay. alors maa ngi lay nuyu di nuyu Sa Baol. yaa ngi koy bokk yi nga xamee ne jamono bi ñuy déglu. yaa ngi koy jaay si kii de nu mu tudd SMS euh, naan ko I know. te xamul ne fi muy dugg rek laa man non mooy je comprends waaw non xam naa man kay xam naa dégg nga anglais léegi. waaw li loolu da man damaa xam ne yow dégg nga parce que demoon nga ci anglophone yi. <laughs> waaye nag ñoom tamit ay ay anglais leen dominé woon di américains yi dañ leen a colonisé woon li ñuy bari bari doole. Hmm. <laughs> anglais ya fa ne woon. <laughs> yaa ngi noonu rek. yàlla baax na yaa ngi noonu rek. yàlla baax na est-ce que xam nga ni est-ce que xam nga ni Amérique Amérique ay ay gars yu daj maanaam réew ma. comme ñun nekk ay Sénégalais nga xam ñun fii suñu réew ñoom ay ay ay dawalkati fas ay indien ñoo dajaloo ba créé réew ma rek. Ah, waaw Amérique noonu la noonu la noonu sosoo. Mm-hmm. parce que les vrais américains c'est les indiens. Mm. waaye fexe nañ ba mu bokk nañ ba jiitu àdduna bi. Ah, ah, <laughs> waaw kay waaw kay. yow lañ koy ba. léegi kon kon nag nu ñu mën di sosoo baax na waaye fu ñu mujj. fu ñu xam nga li mat cinquante et quelques états nga nga dajale leen. Mm-hmm. Euh, tamit ñu nekk benn état dafa am solo. ndax day gën a dooleel seen doole. daa booloo de mooy doole. moo tax ñu tuddee les États-Unis ay état ay états yu booloo. Hmm. donc voilà moo tax. USA. waaw moo doole am lool. United tës tës. waaw xaw ma nag waa ji leen tës tës de moom. waaw maa ngi nuyu ñëpp. di ziare a découvrir ci <laughs> ma Christophe Colombo ah Colombo. Amérique a été découverte et Amérique existe. yow fàttali nga ma Colombo. film boobu Colombo enquête. loolu amoon na. waaw eh Maodo inspecteur Colombo. way yow kenn du moom film bi bu ñu commencé rek lañ woon ku dee. ah léegi nag li des ci film bi yëpp dañuy xoolal ki ko rey. non da nga naan kañ li muy enquête moom. waaw enquête nag di kan moo war a rey néew ba. maa faam génn waaw. <laughs> maa faam <laughs> <laughs> bi ñu mësul gis. waaw maa faam bi ñu mësul waaw. boo koy colombo. colombo boo ma la boo ma saana bari laaj sax dañ naan la ngay mel ne ak bëri laaj. laa ilaaha illallaah. macha mm. ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. non euh, laa daan seetaan Dérick. waaw ah, Dérick yow jamonoy Dérick ah, moo nekkoon. tërë. noonu lay commencé tërë. moo doon wuy am na on on on. après mu ñëw piano. tën tën tën tën tën. tën tën tën tën tën tën. ah. sax maa ngi lay fàttali Derrick ah. ah oui oui c'est très bien. boobu commencé Maodo Derrick. non déedéet sax ba film enquête la quoi je veux dire. <laughs> ak euh, bu dee ci anglais day mel ne day niroog naan daal. ba ma ne drink de. Ah, ah. drink mooy boire. ah d' accord dafa niroog drink moom allemand la. ah d' accord euh, boobu série allemand la woon. mais euh, oustaz ziar la bu baax. man lay ziar bu baax waaw nuyoo naa pare. alhamdulilah mais SMS. waaw naa la bëggee naa school fine. jëf waay naka weekend bi. waaw weekend bi de reposé waaw xam nga reposé moom ak li koy nuru rek <laughs> ñun daanaka li ngay tuddee reposé moom daanaka ab coono la waaye daal euh, noppal nañ ci jàmm xëy si waat ci jàmm ak lu mën a xew kon nag sant yàlla bu baax a baax a hmm. baax ak di leen ziar ak di leen bége bu baax a baax a baax euh, di sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñoo suivre ñu di ñu déglu jamono yi suñu ay plateforme digitale bu ngeen duggee YouTube ñu ngi fa en direct ngeen mën a gis sañse oustaz Maodo fay euh, tey ndax saf na sap kon n'est-ce pas Mbacke yaa ngi confirmé waaw xam koo wax déet mënoo ko bañ a wax nag xam nga nag yow xam nga man man sax man li jàppee ma ko sañse xanaa kay euh, <laughs> Nicolas moo baax rek waaye yow la ñuy dugg lu wóor ci wax ji ndax yow yow bu ma solo da ngay xaw a da da ngay nangu dogal suñu borom Moodu lalal naa la ah. Ah, yow toppal fële nga la waaye góo li ban couleur la góo laa la wax eh, non waxal couleur góor laa la wax eh, li mooy son mu tàdd wala gura xam ma ci xam <laughs> comme yow yaa yoroon ci tis yi mën a ñaw kay man waaw li daal yaakaar naa xeet yooyu la moom waaw ah, xeetu mu tàdd yooyu waaw xeetu mu tàdd yooyu la bu ah, yëre mënu sol rek la waaw mais dafa rafet moo tax ñu leelal lu ñu ma leeral fi nga génn nooy na yow fi nga dafa dëgër daa dëgër xanaa. ci la def kay gisoo booy yi nañ ma nu ne mënu fexe ba leer mujj gi ñu sonne nañ ko bàyyi noonu rek. sa bleu bleu de bi. dafa ba pare ba pare ma nuroog moom xam nga man man man fan yi fan yi fan yi war a neex yëpp dajewut. bi may door a jógee fële ci tukki ba ko gis naa ah oustaz da ngaa leer waaye léegi <laughs> xam nañ ne ci ngóob laa ni de. <laughs> yàlla baax na yooyu yooyu yooyu biñ ma jàppee ba bàyyi ma. <laughs> xam nga jubal xam nga jubal dañoo bëri yow fi mu ne. ndeysaan laa ilaaha illallaah mm. yooyu dafa bëri. xam naa xariti Maodo yi war nañoo jubli ci yooyu fa nekk. Mm. <laughs> yàlla baax na. bal naa la ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. la wax dara bal naa la. jërëjëf damay profité ci occasion bi xamal mbokk yi ne. Euh, ñu ngi en direct suñu ay plateforme digitale bu ngeen gisee ci visuel yi jamono yi na ngay gis euh, couleur bu rose bi maanaam ruban bu rose bi. ce qui est tout à fait normal puisque dugg nañ ci octobre rose et comment on se également ak euh, l'ISCA Euh, euh, ligue sénégalaise bi xeex contre cancer. ak it mbooleem jigéen yi nga xam ne amee nañ cancer du sein. ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy fajkat yi donc on se solidarise à travers euh, octobre rose moo tax ngeen gis noonu ne ruban rose bi noonu ngeen koy gisee ci vidéo yu ndekki li émission numéro un bu Sud FM jaa ngeen jëf kon waa Liska di leen ziare parce que jot naa liggéey ak ñoom ay jamono ils m'ont contacté on a travaillé dans le cadre d'un projet ma fekk si leen fii si seen seeni siège deux voies liberté si si d'ailleurs et on avait fait euh, un excellent job ensemble euh, ma leen yi bëggeeti di leen ziarati waa Liska toute l'équipe jaa ngeen jëf euh, et octobre rose bu euh, jaar ci yoon incha allah SSB maa ngi ko doon wax keroog sénégalais supply base ñi nga xam ne ñoo doon célébrer seen deux ans d'existence jël ma ma présenté leen ko foofee ca teeru bi maa ngi leen di dellu di sant ak di gërëm concession portuaire la 100 pour cent sénégalais Euh, ñoo ma indil cadeau yi merci beaucoup soirée de gala bi ak Pape Cheikh neexoon na macha allah et j'ai eu énormément de plaisir à présenter cette soirée de gala euh, beneen mbir itam di so para euh, bi ñu gis il y a trois quatre jours. bu Semga la defe naa moo def soo para bi ah mu doon image bu leer booy seetal leen ma kii bi image bu Semga bi bi muy sauter en parachute. Hmm, mu doon image bu ma marqué également euh, et ça aussi c'est l'occasion de saluer notre armée ah di leen yónnee notre euh, nos respects Hmm, di saluer également euh, gest ak exemple bi ñu wone wane euh, les pour pourquoi parce que euh, mbokk daf ma mës a wax ne dellu nuyu parachutiste yi am na ñu leen tuddee dama fàtte woon am na fu ma ko noté woon mu ne parachutiste yi nekk ci arme Sénégal yow la ñuy déglu chaque suba te yow la ñuy bége bu weesoo ñoom sol suñu ay soldats nekk ci gox yeeg goxaat yu gën a reculé hmm. saa su ne dañuy yónnee ne ñoom dañuy bàyyi xel dañ leen di wéttali kon baax na jaaru na itam oustaz leen bàyyi xel d'autant plus que yow ràññee nga bu baax a baax sunu armée nationale puisque chaque 4 avril yaa ngi def ay yu am solo ci sunu armée kon ñu ngi leen yónnee encore une fois nos respects bi ci des euh, président Diakhaté. mu ngi lay ziar di ziar Maodo ñu ngi koy nuyu président Jaxate ku baax la mm-hmm. ah vraiment euh, xam nga nit koo xam ne euh, naka ngeen koy koo xamul nu nu muy mu la def merci ku baax la merci beaucoup xam nga nit koo xam ne mosu leen gisante mm-hmm. màggal day jot mu am geste bu mu def mm-hmm. nga woo ko ne ko waa lii président mu ne la lii ci màggal gi laa ko def te lépp ci ci ci euh, voilà lépp lu jëm ci religion lépp lu jëm ci voilà mu ne xoolal nga jàpp ci comme ça màggal gi neex gàmmu ñëw mu mu ne noonu ah euh, saa su amee ay yu am solo yu amal njëriñ euh, askan wi da ciy indi participation bu lu ñu wax rek ci antenne bi mu mm-hmm. ngi ci biir mm-hmm. donc euh, président Diakhaté ñu ngi koy nuyu bu baax ñu ngi koy ziare bu baax ku baax la vraiment baax na trop baax na lool ñoo bokk dëkk Diourbel uh-huh, di waaw très bien président kon gannaaw Mbàkke yëpp booguma ba léegi xam naa kon léegi ci yow laa ko wér waaw moom de xam naa ne moom ak moom ak tudd Badara Baro hmm. ñoom ñaar moom boo jokkoo ak ñoom ah. yaakaar naa ñoom ñoo ma ëppale Diourbel fan maanaam fi ne ah, ndax ndax ñooy samay ñooy samay ñooy samay njaati jëf macha allah waaw bu ko defee ñoom danañ la dalal eh, léegi kon sama nijaay moom sama nijaay la jaxate kon nag tonto eh, Nicolas ngi noonu yóbbu ko njaareem <laughs> xuus ci dex gu ndaw googu den ak marché bi <laughs> jërëjëf dexuk Maodo Faye googu <laughs> kon président jaxate ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax mm-hmm. di ziyaare Serigne bu Bousso suñu xarit la moom itam di ziyaare Aziz Samb moom itam suma pap ji baax ji def geste ci gàmm gi yónnee ñu yu baax ah, eh, ñu am ay kilifa yu baax yi nekk ci réew mi yàlla ñu yàlla xiir ci ñuy am ay kilifa ak i soxna yu baax mm-hmm. yoo xam ne seen kanam seen xar kanam seen jëm seen wax seen xalaat yépp ay baax baax la mm-hmm. saa boo leen gisee baax ngay gis ci ñoom euh, ndax safaan wa euh, da lay yóbbu ci yeneen dimension yàlla nañ ci yàlla musal père Birahim Ndiaye maa ngi koy ziyaare moom itam woona ma ci weekend bi di ma ziyaar ak di ma ñaanal bu baax a baax père maa ngi lay ziyaare bége père Birahim Ndiaye suma pàpp ju baax ji le président personne âgée. Ah. woo ma moom itam rafetlu suñu liggéey ñaanal ma ñaan yu fort. kon euh, papa hmm? maa ngi lay ziare bu baax a baax président association des retraités de Thiès. sant nañ bu baax. gërëm bu baax. ma profité ci occasion bi itam di nuyu Ouray Thiam Préra. Ouray journaliste la waaw. journaliste bu baax. Ouray Thiam Préra on s'est connu on a été collègue à RFM. Hmm. Hmm? dafa dafa muuru. waaw boobu ba léegi. macha allah mais muy muy lu sincère ci moom. muy lu dëggu ci moom. bu rey ci am préra. yàlla na yàlla yàlla fay sa xol. te euh, jàppale la jàppale sa njaboot rawatina VJ mi nga xam ne yaay yaayam. dégg nañ sa kàddu sa message. VJ il vit son temps. VJ génération lay dund. yaayam ñëpp xam nañ ko ci journalisme bu dëggu pàppam Bale Préra ñëpp xam nañ ko ci sell bi ak ak ak discrétion bi mm-hmm, mm-hmm. seen doom bu dee day dund génération dañ koy encourager il est bien entouré parce que sa mère Ourey Thiam Préra est une voilée et une voix très sincère très honnête avec un cœur en or kon Houraye Thiam Préra ñu ngi lay ziar di souhaiter bonne chance à Vigi qui est la coqueluche de la nouvelle génération et qui marque sa génération li ci des parents yi dinañ def job bi ñu war a def mais nu ñu bàyyi xale bi mu dund génération ku nekk ak sa génération n'est-ce pas euh, kon Houraye maa ngi lay nuyu bu baax a baax et rafetlu sa message nag ma nuyul grand Bale Préra n'est-ce pas di leen ziare bu baax a baax a baax di leen sant ak di leen gërëm Kader euh, Kayre ah rakku Aïcha Kayre sa xarit euh, oustaz Maodo Faye ñu ngi koy ziar moom El Hadj Dafe bu Medina. merci beaucoup xam naa li ma ne euh, Aïcha Kayre sa xarit moom bëggooti. déedéet <laughs> ah bon <laughs> déedéet ok tontu bi kay day gàtt déedéet. waaw <laughs> mais Aïcha ay man nag maa ngi door a xam ne Maodo mii nag. ah déet loo ma xamal. xam nga mënu ma cee teg li ma ci bëgg a teg. waaye yow mën nga am problème ak Aïssa fi mu. Eh, eh. ah, déet moom moom ak man problème de man maa moom problème. Eh. Aïssa kenn mu baax mi Aïssa mu sell mu. de moom moo am ak man problème Aïssa daa mën a tooñ. ndax ah, a man la man moom baax na onze heures et vingt et une minutes euh, oustaz yaa ngi fàttaliku bi Youssou Ndour waaw waaw maa ngi fàttaliku bu baax a baax. waaw sa bés ba. sama bés ba. mooy bëgg a bindee affaire bi. waaw Nicolas Diop sama cérémonie dédicace. waaw a am. maa waaw ñoom maa nga fa woon ba jël fa kaddu sax. ah yii ah. Oustaz Maodo jël kaddu. waaw Baye Omar Gueye nga fa woon DG. Ah, ah. maa la wax lii. non bis bi tuuti yow la ñuy wax <laughs> boo fa ñëwee da ngay bi ay kilifa rek ma wuyu si. Ah, euh, ñu am mbégte bu baax Maodo ngi ah, nii mën na ko confirmer. salle bi fees dell. ma indi leen nag show spectacle xam nga man hmm. yooyu la dox. Euh, cérémonie dédicace ñëw calme nii cool. Hmm. mënta ne ak man. dafa xumboon de dama xumbal affaire yi indi show di kii laata nag discours yeeg euh, yu baax baax yooyu di ñëw donc yu génération fàttali mbokk yi mooy livre mi ma bind ci Youssou Ndour toujours disponible à l'Harmattan Sénégal et l'Harmattan international di leen sant di leen jëkkëram bi mooy suma premier livre ñu ngi ci deuxième bi di ko wàcc yàlla baax na lu tax ma fàttali leen suma livre bi ma def ci Youssou Ndour mooy démb la woon Youssou Ndour anniversaire am premier octobre euh, ñu koy souhaiter joyeux anniversaire à monsieur Youssou Ndour je le disais et je ne cesserai de le répéter c'est l'un des euh, plus grands artistes de toute l'histoire de la musique africaine maanaam histoire musique africaine boo ko dajalee ci lu bëree bëri bëri Youssou Ndour li mu ciy représenté jéggi na dayo te loolu et c'est écrit dans te dootul dañ ba ilaa koy euh, souhaiter joyeux anniversaire c'est une fierté bien africaine une fierté bien sénégalaise et on est fier d'avoir un artiste euh, multidimensionnel multiplanétaire euh, comme Youssou di sunu représentant ak ambassadeur ci wàllu art ci musique fépp ci àdduna Sénégal nag xam nga dafa métti mhm. souligné naa ko ci sama livre ba may def introduction ne leen man Youssou Ndour politicien intéressé ma Youssou Ndour businessman donte liggéey naa ak moom te mu ku liggéey ak moom xam ne Youssou Ndour ku liggéey ak moom di nga am loolu ak loolu mais boobu itam intéressé wu ma domaine bi ma intéressé ci livre bi mooy aaram musique am mm. culture am la mu bind euh, wëy yi mu créé nañ ci mën a inspiré woo ak yu ni yooyu yëpp maa ngi ko bind ci biir mm. euh, extrait Youssou Ndour bi bi muy wax ci euh, boobee cérémonie dédicace am naa ci tuuti extrait sometime soose ñu déglu la ma waxaloon ci lu baax Nicolas je voudrais vraiment te remercier et mon ami Mika Michael Souman, je voudrais te remercier pour euh, la générosité et la leçon que, que tu nous donnes là. Vous êtes animateur, vous étiez à la RFM, vous allez à Sud FM, l'une des meilleures euh, radios du Sénégal. C'est une radio, c'est une radio référence, comme la RFM. C'est l'une des meilleures radios au Sénégal. Ça, tout le monde le sait. Vous allez là-bas, vous écrivez, vous reparlez avec euh, les gens de la RFM, ça c'est un symbole, c'est un message très très très fort. Merci. Moi j'apprécie énormément ça. jërëjëf jërëjëf loolu extrait bu ndaw la ci discours yu sunduur ba mu defoon ca ba may def cérémonie dédicace sorti livre bi di You génération bi mu bind ci carrière am donc euh, santati bu baax rawatina bi nga xamee ne spécialiste yëpp ci wàllu livre lecture ak euh, ci wàllu art ak culture ci Afrique bëri na ci kilifa yoo xam ne yónnee nañ may courrier ki woo boobook léegi di félicité liggéey bi ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax noonu rek la kon joyeux anniversaire Youssou Ndour euh, loolee bokk na ci li nga xam ne bëggoon naa ko dugal leneen li des nag mooy euh, oustaz. Euh, su weekend bi démb koo koo invité woon ki jano euh, bi. <coughs> waaw maa invité woon Abdou Khadir Ndiaye. mooy kan mi nga xam ne mooy directeur bu yore ñi nekk ci wàllu garab yi collectivité territoriale yeeg yooyu. Ah. nga xam ne ñoom mair yeeg ya ci aju. am hmm. ci pàcc boo xam ne moom la ko njiit réew mi dénk. Hmm. maanaam daal gouvernance locale beeg yooyu lu koy gën a yaatal ak yooyu. jërëjëf. Hmm. kon kooku mooy Abdourahmane Ndiaye. waaw bii def buzz nag moom. bii def buzz. mooy ban. refus de délivrer les de parrainage à la coalition Sonko président 2024 damay ruube. waaw Alioune Tine désavoue la DGE. xam nga bii moo def buzz. waaw bii la journaux yëpp reprendre tey. parce que c'est pas <laughs>

parce que lañ waxoon ci wàllu yokk salaire ya demee mm, noonu mm. da ci am loo xam ni booy demee bay wax ne ñëpp da leen yokkal da mm, koy dajale léegi nag lii gars yi seen grève bi c'est légitime même le directeur démb wax na lu mel noonu mais nag ñi ngi waxtaan xool ay porte ñu seet comme d'habitude pour trouver une solution mm-hmm. léegi nag am na maire yoo xam ne yi ak maire yoo xam ne tey jii ñaari weer ngi ni fay ñu seen ay donc voilà am na solo loolu <laughs> ala kulli xaal li nga wax lépp lu important la. nit ñi soxla nañ def buzz. ci ci ci dimanche bi nag. waaw d'accord Alioune Tine sax Alioune Tine sax bi di de surprise bi ngeen di am. mu pompe Badou Macky nga ñuy indil. yaa ko ko digoo. moo damaa xam ne mën nga ma dribble ci diggante bi ne xaaral ma jël Macky. yéen Macky ma ko woon sax day baax na.

Tanor Thiendella Fall voilà mu ngi noonu kon mooy une Sud Quotidien bu tey bile di euh, ganu objection bu démb coppite bi xam nga ko kii oustaz nu ñu koy woowee bi Alioune Tine Sol démb ci objection parce que bii bëgg naa ko c'est très ah, africain c'est très aaré ah Obasanjo ah bi mooy Obasanjo mais bii original Obasanjo la kon parce que grand bi ah macha allah père li mu li mu sol ci li mu sañse ci objection moom. li mu def mm. moom dafa bëri loxo kii ah. Baye Omar Gueye parce que ñun bu ñu koy invité kii euh, ndekki li du kas du sañse li ah oustaz. ah déedéet man kay xam nga ràññi ràññi nga ñaar émission bi sol la ma ko sol fekk la muy sol fii ñu koy ziar suñu pa suñu papa la suñu xarit la Alioune Tine n'est-ce pas eh, allah donc eh, émission bi démb objection eh, Alioune Tine li mu ci wax am na solo tey ci suba maa ngi xëy di seetaan émission bu mag boobee di info matin ca TFM hmm. kii nu mu tudd Daouda Mine di spécialiste ci domaine bi confirmé li Alioune Tine wax journaliste bu xarañ boobu boobee ànd ak journaliste yu xarañ yooyee ca TFM di leen béggee n'est-ce pas soxna Fati euh, daaw da confirmer ne effectivement Alioune a raison euh, li euh, DGE def Ousmane Sonko du dëgg du yoon. waaw xam nga direction direction générale des élections mooy DGE boobu ngay wax noonu la li ñu leen dénk dafa am limite moom la Alioune Tine doon wax ki ñëw di déposer si administrativement bu fekkente ne. fii yëf yi war a jaar jaar na fa nga war koo jox fichier bi bu ñëwee tey ji comme candidat yi nga xam ne indépendamment et tout ça mhm. bu ñëwee da ko war a jox kayit bi kay kay kay kañuy fal bañ a fal nag loolu conseil constitutionnel ñoom ñoo ko yore mhm. moo tax Alioune wax ci biir texte bi ne ñii buñ jël place juge yi mhm. ñoom duñu ay duñu ay magistrat yuy atte nit ñi àggaguñ foofu le dañoo nekk ci problème parrainage ak déposé ay fiches yu demee noonu. Hmm. léegi nag ki ñëw te nga xam ne fan fan ko jaar am na mandataire ku ko yónni mu war a représenter benn parti politique. Hmm. wala boo mu nekk ko indépendant. loolu bu keroogee kooka moom nangu rek affaire bi xool la la kay dana jàll ak du jàll nag. Hmm. waa direction bi ñoom yorewuñ ko. moo tax ñoom ñu wax ne koom ñoom dañoo dañoo outrepassé seen ay fonctions nekk ci beneen kii përëb mais nag dafa am benn affaire bu doy waar bu ci am. L57 ci code électoral bi fi mu bi nga xam moo fi nekk article 57 bi li mu wax ci wàllu ñi nga xam ne ñoo war a déposer pour mën a nekk ay candidat il faut que kooku mu nekk ci benn parti politique boo xam ne bi dafay nekk légalement constitué parti boobu nag est-ce que nag léegi kon parti fas nekkoon na légalement constitué wala est-ce que nekkati na ko mm. kooku benn laaj la ah. waaw te article L57 loolu la wax mm. ci alinéa candidat nga xam dafa nekk un candidat indépendant. Hmm. kooku bu ko roogee day toog un yoo xam ne dégguñu ko ci benn mouvement politique ak yu demee noonu. Hmm. mu nekk ko indépendant koo xam ne kii dafa jekk jékki rek ak laay cëpp lay doon. Hmm. est-ce que ñi doon déposé itam ay laay cëpp lañ. moo tax attention ñoom boo deful ndànk. est que est-ce que prérogative nga baal ma prérogative yooyu noonu. Euh, bu fekkee ne direction général élection amuñu ko. kon ñoom fauté nañ. faute lourde faute nañ loolu conseil constitutionnel kon kilifa yi état bi. war nañ jël ay sanctions lourdes. ah loolu moom lu ci am. ah, ah si ah, yaakaaruma ko de ah gars yi Sénégal li ah. lay doxee it. mais li ñuy def nii wàllu conseil constitutionnel ñoo yore dernier mot bi li war a naan. Mm. yaa ci yore sa cëggal guy. Mm-hmm. am na loolu tant que foofu boo ko atteer yaa ngi juum. Mm. waaw rejeté juridiquement boo rejeté da naan kon tel tel ak tel ak tel moo tax ma rejeté ko. Mm-hmm. te loolu nag li koy ki koy def. Mm-hmm. ci parrainage bi àggagul benn yegg ca kattan la kooku mooy conseil constitutionnel. Mhm. moo tax Alioune Tine li mu wax absolument loolu mooy dëgg. Mhm. moo tax euh, jërëjëf euh, oustaz la mu wax euh, mu loolooy dëgg te Daouda Mine ba ma koy dégg ci suba wax na lu ñu mel itam mhm. ne justement ñi ànd ak Sonko ils ont été intelligents de dugal ñoom itam plusieurs kii. pour a cas où. au cas où mais ragal naa nag malgré tout. yaakaaruma gars yi bàyyi leen ñu jàll de ah xëy na. ñoom kii euh, man man nag foofu bloqueel ma foofu. <laughs> <laughs> après nga ñëwaat ci. Mbacke euh, d' abord euh, DGE ak li ci Alioune Tine wax. waaw dëgg la de xam naa am na ñu bett waaye am na ñoo xam ne warul leen a bett ndax li fi jaar ci diggante bi ci diggante Ousmane Sonko ak nguuru Sénégal bu ñu ba ci war a jëli ay parrainage ñu ne joxuñu ko moom. Hmm. gantalal nañ ko ndax nee nañ turam nekkut ci ñi sañ a wate ak ñu sañ leen a wateel. Hmm. léegi nag ñaar day am dafa am loo xam ne bu amee ci mpénc ñaaree Euh, boroom xam-xam yi analyse yi kenn ku nekk day am nu mu koy jàngate mm. ñu dem ci loi yeeg dem ci article yeeg yooyu loolu ñëpp jotewuñ fa fa mm. loi nekk ak yooyu moom bari na ñuy wax ci mbir mi ñoo xamante ne mënuñ faa jote ñi mel ne man léegi nag dafay am mbir moo xam ne bu amee itam bañ séqu ko mm. lu mel ne deesee moomu wala yooyu ñoom ñoom ñaare duñ tontu c'est-à-dire euh, duñ tontu wax ne li ma def nii fii laa ko teg wala teguma ko fii su fekkonte ne ñuy tontu lañ Euh, buñ tonto ba noppi ci la nit di door a mën a waxe ndax ñoom dañoo fot wala dañoo def njuumte wala defuñu njuumte waaye ginnaaw ñoom euh, du ñu tontu ci ay këyit lañuy tontu Euh, ñi nga xam ne ñoo yóbbu woon mbirum Sonko ñu delloo ko ñoo ñooy bindaat kii delloo leen hmm. ndax ñoom boo dee demalee ka fekkelee man ngaa sukkandiku ci ne gannaaw ministre bi génnoon na ne Ousmane Sonko condamnation bi ñu ko condamné définitif na hmm. léegi turam nekkatut ci eh, ci kii bi ci nu mu tuddati maanaam ci fiise bi hmm. nga sukkandiku ne ki turam nekkatut ci fiise bi bokkut ci élection yi kooku nga ñëw di ko jëlal si liste parrainage na nañoo sukkandiku ñoom ci yu mel noonu ba génnee ci ay sew-sewi loi ba jàpp na ñoom waruñ ko koo jox boo yaatalee angle bi nag indi ko ci lii Alioune wax indil ko ci li Maodo wax ak li sëñ Daawda Mine moom wax mm. da nga ci mën nga cee sukkandikoo ci ne day mel ne ñoom kon liñ leen sant mm. mooy ku fa ñëw rek ne man candidat laa ñu yëkkati këyit wuy wane ne sañ ngaa wuti parrainage ñu jox la mm. ñun ñëpp ñu ànd wuti pare parrainage ki yor cëggal guy gi nag ci dogal bi ca dogal bu mujj ba ci ne ndax doo bokk ak doo bokk ñu ne ñu ne ñooñu ñooy conseil constitutionnel man ngaa waxit ne ñoom ki ñu jox maanaam këyit ki ñu am sañ-sañu jox këyit mooy koo xam ne turam dafa nekk ci biir euh, maanaam fichier électoral bi ñu jàpp ne kii lisible na pour mën a nekk candidat hmm. wala mu mën a doon koo ne sañ naa hmm. ci des yëpp dañuy demalee hmm, ko fekkele rek maa jàpp ne man pourtant ci Pastef lañ bokk Euh, misir boo xamante yoon da koo jëloon boo xam dafa ñeel Pastef kese muy jëmmi parti bi dissoudre ko ak jële ko fi ak loo xam ne daa dal ci Pastef dal ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñuy tudd jëmmam di tudd condamnation di tuddaat jëmmam di tudd apartem léegi nag li jëm ca parti ba euh, loolu beneen euh, euh, donc meneen mbir la li jëm ci condamnation bi meneen mbir la. parce que itam xam nga Mbàkke réew mi lépp jaxasoo. lépp a jaxasoo. réew mi comme comme des fois naan comme puuj pàcc wala kii dëxin. Mm. parce que ni muy rëbbëjoo et tout Sonko ñu ngi lay wax. candidat pas candidat recours pas recours peut-être et cetera Pastef ex dañoo dugal recours. loolu nga dem ñu ne la direction générale élection. constitution warta def lii ñele ñele nee la non moo war a def lee ñi la ne constitution conseil constitutionnel moo war a def lii ñeneen non bu kii spécialiste constitution ne nii nii non xam nga réew mi comme puj pàcc non non non mais am na ci yoo xam ni mën nañ ko leeral na ci yoo xam ni mën nañ ko leeral mais leeral gi ñu koy leeral du tee tamit dëgg gi nekk sa kanam nga gis ko mhm. Ousmane Sonko moom élection yii nu jëm mhm. man jàpp ma ni dana ci bokk waaw physique yow waaw jàpp tamit boobu ba léegi yaa ngi koy wax yaa ngi insisté ne loolu sax mooy li jàpp nga ne Ousmane Sonko du bokk ci élection waaw ay ay nitam nag hmm. wala parti wala yu demee noonu ñoom ak fu ñu mën a bokk ak kuñ mën a àndal mën naa am waaye jëmmi Ousmane Sonko moom en tant que en tant que Ousmane hmm. man góob ma ne dana bokk ci nga ne jamono yi ñuy wax Ousmane Sonko ci boppam am na conscience ci loolu mais mais xam nga xam nga politique lu tax. ne mënta bokk. non il sait absolument il sait parce que déjà rek moom libre. Hmm. fi mu te te te bés ba nu koy bàyyee itam fa yoon tënk na li fekk yëgul foofu bàyyiwuñ ko bu neexee gars yi duñ ko bàyyi. Hmm. loolu Ousmane Sonko xam na ko te ñi nekk ci biir Pastef am na ci ñoo xam ne ay juriste lañ. Hmm. am na ci ay député assemblée nationale yoo xam ne dañoo nekk ci biir Pastef ba nopp dem jàng droit xam li droit wax. am na ci ñoo xam ni politique la ñuy def teg lee la nga xam ne moom lañ jàngoon. bàyyi comme li Mbacke doon wax teg fi ay tuj fëlëg yu demee noonu mais ñoom ñoo la gën a xam ne. Mm. élection yii ñu jëm moom ci février 2024. Mm. jëmmi Ousmane Sonko moom doo ko dégg muy baatal campagne. waaw loolu moom c'est clair. ñoom xam nañ ko baax léegi nag. booy léegi ñu commencé jaxase mélangé. waaw léegi nag ban porte la ñuy jaar. déggoo ma de. waaw booy ñu commencé la jaxase mélangé. loolu loolu du di. loolu loolu loolu du information loolu du problème loolu loolu loolu c'est pas du problème loolu sax loolu dama ko mag léegi. ba xam ne maa ngi ci ñoo ci gaaw. non maa ngi ci beneen waayaf léegi. te loolu xamuñu ne loolu tardement la loolu. waaw tardement waaw yow mën nga boobu ba léegi ah loo xalaat rek nga kii dégg da ngay tardé rek ça pas de sens. ko daal euh, nit ñaa ngi wax seen teewul <laughs> man jàpp naa ne man comme na ma ko <coughs> du bokk ci élection yii jëm te ba nga ko waxee ci Macky confirmation am na noonu la demee parce que li tax mais affaire yi les faits sont là xam nga affaire yi tamit vraiment da xool ni mbir yi ni muy tëddee hmm. ku toogoon fii tey ji yaakaar naa ne feek ñaari fan ñetti fan danañ bàyyi Ousmane Sonko pour mu génnaat nekkaat ci géew bi mm. loolu koo wax tamit bu dee nit pire def naa loolu mënta ne léegi nag maa jëmi Pastef nag ak seen i xale yi ànd ak ñoom ak yu demee noonu mm. mën nañoo sàkk ñoom seen pexe mm. ba wut benn récépissé bu bootu ci kenn mën nañoo am tey récépissé bu pur mm-hmm. wala ba keneen kooku abaleen parce ñu bëree bëri tey pur c'est proposé na lu député. Mm-hmm. ba jëm sax ba yor réew mi dem na am na jamono xam dañu am boo récépissé mm-hmm. ay député yu bari yoo xam ne fan fan làqatu mhm. après récépissé la leen abal léegi nañ def loolu mhm. mais li ci des nag bon buñ boogee toog fii nag naan Ousmane Sonko day nekk candidat day nekk candidat man damaa ragal ne sax waa Pastef loolu aw yat lañ ko def rek pour ko mais xam nañ li xew ah, xam nga lambi ko loolu rek waaw xam nga affaire nandité la rek mais boo def nank lan naan waxagun ko hmm. waaw parce boo gisee tey jii nañu déposé hmm. tasaaroo kenn ku nekk dugal dara hmm. mooy tournée internationale. xam nga xëy na am moo tax man la parce que am na beneen pexe am na beneen yoon bu ñu war a jaar. Mm. wala ñoom boog waxaguñ ko nit ñi. Mm. mais kantaan ak Ousmane Sonko day bokk ci élection yi. Mm. bon loolu man vraiment man ma ko. te Ousmane Sonko bu bokkul mu tànn Guy Marius Sagna mu représenté ko du bett kenn. Ah, gis nañ xam nañ ni ko ni ko Guy jege trop. waaw waaw ah, eh, xam naa loolu day mën naa posé ji ay ay problème xëy na ci biir euh, seen parti. Mm-hmm. mën na ko bañ a posé ndax jàpp ma ne Guy Marie moo nekkoon numéro 2 wu Ousmane Sonko ci biir Pastef. Mhm. Euh, am na fa ñeneen ñoo xamante ne ni ña nga fa woon moom Faraab la bokkoon. Mm. joxanteeg ñoom loxo donte euh, bu fekkoon Ousmane Sonko mooy tànn. Mm. ne man day dem ma ci élection yi waaye nii Macky Sall def dañ ñaan ko tànnal koo xamante ne moo lay demal. Mm. bu tànnee Guy Marius man na maa bañ a bett kenn ndax euh, mën nañoo gis ne bu dee ku muy wóolu mën na koo wóolu. Mm-hmm. bu dee koo xam ne xam na ni kii nii ñoom ñaar seen combat yi ñu combat bari na fu ñu daje. te itam bari na lu ñu bokkale ci ñuy xeex bu boobaa lu ba maanaam yu baree bari mën na koo mën na koo justifier mm-hmm. jafe-jafe bi sénégalais yi am ba ni ñoggu mooy mm, comme li sëñ Maodo doon wax léegi ñàkk bokk Ousmane sonk ci élection yi. Hmm. xam nga ñaari nit lu mu bëgg. day jàpp ne rek loolu rek a mën a nekk hmm. waaye léeg-léeg nit na bëgg dara ñu lay tegal ay ndëgg sërëx ba mu jàgg da ngay xam ne génn fii ñu la dugal moom hmm. dëgg-dëgg lu jafe lay doon léegi li lay noppal nag mooy nga jéema a wut nan ngay nan ngay fagaroo ci li war a topp ci loolu mm-hmm. Ousmane Sonko jàpp naa ne ñu ëpp ci askanu Sénégal moom bu ñu sañoon day bokk ci élection yi bu ñu sañoon dañ koy wateel mm-hmm. man loolu sama sama sama yaakaaru bopp la ak seetlu yu ma def ci nit ñi mm-hmm. waaye ci wàllu euh, du ma ko tuddee yoon wala wàllu politique waaye yi fi jaar yëpp ci ay jafe-jafe Euh, du mat ñetti weer ci ginnaaw ku waxoon so Sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko dana nekk ci biir kaso bi tëdd hmm. réew mi mel ni mel ne dégg nit ñi xëy dem ak ñëw hmm. bari na ñu bëgg Sonko ñoo xam ne dañ daan wax naan bu ñu bis bu ñu laalee Sonko hmm. nangam nangam di tëkku tey jii Sonko nga tëdd fële li man ci boppam yëpp dañ koy lijjanti di ko defal li indi loolu mën naa indi itam ñu dem ba euh, février jot ñuy dem di wate ji te doo fa gis maanaam maanaam aw xobam te du tax dara xew bu boobaa hmm. léegi nag ku bañ loolu bett la hmm. da ngay préparer nag leneen li nga xamante moo ci war a topp loolu hmm. nag jàpp naa waa Pastef xame nañ ko noonu su fekkee Pastef ci boppam sax nekk candidat Pastef wóor na ndax mën ngaa dem jëli parrainage wut ko ci turu Pastef dem ba àgg ñu ne la Pastef parti bi amatul jëlee nañ ko fi bu boobaa it ci luwaa la ñuy dem naan kii sañ na kook kii sañu kook kii sañ na ko kon wuti yeneen récépissé yoo du parti boo xamante ne dañ koo éliminer dem jéem a bootu ca ñooñu jël récépissé boobu. dem ci ay élections loolu mooy li nga xamante ne moo gën. économie d'énergie jéem leen jéem na leen jéem na ça marche. d'énergie. jëm naa jëm leen ça marche. jëm naa jëm leen. ak Kàppay da alal yombal sa pour la première fois au Sénégal le dépôt est à zéro le transfert à zéro et le retrait à zéro Jolof Chicken bi nga xamante ni ku ko wax sa xel dem si EDK ay ginaar yu frais bàyyeekoo fii si mim réew waaye tamit yamuñu foofu de lépp luy fast food day xeetu baax baax doon ay xéewal yu mucc ayib si qualité ak rapidité yi fii si ak e akay bi benn la cadre ak environnement bu neex macha allah li ngeen xeme moon moo di EDK bii nekk si diggante héliport ak Yanka Manamori boisson champion yëpp la EDK moo leen ko indil Manamori saveur nature et coco disponible dans tout le réseau EDK Manamori la boisson des champions merci beaucoup euh, Mbacke Sylla merci beaucoup Maodo Faye la ci gan la ci kanam raw li gët noonu ngeen koy waxee nest pas li leer ba leer mooy Pastef introduire na kan Guy Marius Sagna dem na jëli. waaw récépissé. waaw euh, dem na jëli kii euh, mooy feuille parrainage. waaw ba feuille parrainage jëlal nañ Bassirou Diomaye Faye moom itam donte moom itam. Euh, mhm. il est toujours ci ci prison bi. jëlal nañ itam keneen. ci Birame Souleye Diop Birame Souleye waaw. ak Abbas Birame Souleye ba. Ah, ah, moo tax ma ne moo tax man la Pastef damaa ragal ne dafa am weneen yoon wu ñu bëgg a jaar. Mhm. wala aw ñal waxan wi politiquement mën nañ ca ndaxante gaa yi ba jaar ca. Mhm. seet koo xam ne kii dañ koy samp même bu leen ko aayee ñu doog a wut nag ku wéeru wut benn récépissé par topp ji. parce que nantema rek na waaw nantema comme li nga wax donte nag ëllëg moom bu ñu ko toppee ëllëg yàlla rek a xam. Mhm. que li xa mhm. waaye tey jii ku nite. Mhm. ñu ne la Ousmane Sonko dana génn ci kaso bi dem dem battre campagne. jàkkaarloog ñoom Amadou ma Ba Amadou Ba nga gëm ko. mais yaakaar naa ne xalaatoo réalité politique yi xew ci réew mi. parce que ñoom seen yéene. moo doon fexe ba Ousmane Sonko du bokk. gis nga gars yi naan Ousmane Sonko na bokk. Mm. yéen a jooju ñu am pour Ousmane Sonko bokk. ngu gars yi fi nekk seen yéen a mooy Ousmane Sonko ba a bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. te ñoom lañ doon def ñu ngi koy réussir parce que téye nañu Ousmane Sonko ci benn béréb dematul dikkatul. Mm-hmm. su ma la su ma la te bu ñu sañoon ñu bàyyi man mii su ma sañoon ñu bàyyi Sonko. su ma mu bokk ci élection yi mais su ma la déggee dama ci jàpp ñaar. Euh, voir la réalité en face. oui ak itam se préparer à. au pire maanaam oui. le pire pourrait être euh, que Sonko bañ bokk justement oui. partir de ce moment lan nga teg comme stratégie loo xam ne moo koy mooy contourner loolu mais justement moo tax man la gars yi am nañ beneen stratégie bu waxul hmm. parce que pour le moment

ngi mi ngi ami sañ-sañ waaye loo xamante ne yow mi ko bëgg bëgg mu bokk da nga naan définirul de maanaam ba léegi am na buntu ngir mën a bokk ñi mm. bëggul mu bokk génn na la condamné nañ ko ba noppi mm. euh, loolu féete na boor mm. te ñoom buñ xasee ba ne féete na boor joxe joxe joxe dogal yooyu itam moo xam loola la yoon wax moo xam loolu yoonu wax li cay la cay mën a topp manifestation lay doon wala dara te loolu li mën a jur ci ci lu mel noonu bëriwut bu boobaa dëgg-dëgg euh, bu fekkonte ne ci mbirum yoon rek la ñuy wax. Mm. ak ci mbirum àtte. Mm. yëf yi mën naa bañ a fii. la ko agsil fii ci wàllu politique nag bu fekkee loola dëkkut. te loola mooy bañ Ousmane Sonko bokk. Mm. loola itam mën naa mooy mooy li ma wax léegi rek. gars yi seen yéene moo doon. di karkaral di korkoral ba fexe jàpp Ousmane Sonko ba ne ko teg ci benn béréb ngir mu bañ a bokk ci élection yi. maanaam gannaaw jaral na leen loolu yëpp. ba du agsi fii. waaw dañ ko bàyyeeti est-ce que est-ce que question bi itam ngeen partagé ko est-ce que ñàkku bokkum Sonko physiquement euh, dina teggi dara bu Sonko joxee direction. Ah, mais loolu la wax naa ko fi benn jour nee naa leen Sonko mais nag loolu il xel a koy dégg de du xol a koy dégg. Hmm. Ousmane Sonko bu bokkee ci élection yi dana ci bokk bu ci bokkul dana ci bokk. Hmm. parce que aw nitam duñ woteel moom li topp ci gannaawam. Hmm. ak lu cas bi critique critique. mën nañoo tànn beneen candidat bu leen neex bu ne. mais du nekk benn Bokk Yaakaar. léegi nag Ousmane Sonko soit mu joxe ndigal ne kii lañ fi teg. bu keroogee est-ce que ci ci bannière Pastef lay demee parce que Pastef nee nañ amatul. Hmm. wala boog dañ day wax ne topp leen diw ko diw dem ci waa PUR. Hmm. ñu jox leen seen récépissé ñu dem ci élection yi. ensemble waa PUR ñoom. non je ne pense que ce boobu ñuy wax dina mën a nekk. xam nga nag xam nga léeg nga wax sànni aw wax. Hmm. pour tester pour xool. loolu ci xel la bokk ci politique la bokk comme. PUR du la bett. waaw bu fekkee candidat wu dem na. pur ngemb nañu ko. waaw pur ngemb nañ ko ñu jël récépissé pur pour mm. demee ci élection yi. bu keroogee kenn comme comme kenn déciduru ko. Mm. mën nañ caa dem. Mm. mais duñ mën a dem ci bannière Pastef. bu keroogee gars yi fii la taxaw ci direction des élections wala euh, conseil constitutionnel. ne képp ku fi tuddati Pastef. bokkutoo parce que am na décret présidentiel bu génn. bu wane ne amatul. kon fokk ñoom ñu wut mel pexe pour jéem a foofu dem. léegi nag muy Ousmane Sonko. muy benn ñaar ñu xañ leen carte woo ne wi dafay laxasoo ci Pastef. Mm. troisième élément bi mooy duñ leen woteel. Mm. tey tamit. lu Sonko wax danañ ci ànd ba mu des Benno Bokk Yaakaar. n'est-ce pas jërëjëf oustaz Maodo Faye eh na am na solo yéen a ngi ci ndekki lii rédaction bu ndekki lii yëpp di leen ziare 11h45 minutes yéen ñu ñoo suivre en direct suñu ay plateformes digitales ak réseau synchronisé Sud FM Saint-Louis ñu ngi nuyu le chef de la station ainsi que tous les journalistes de Sud Saint-Louis animateurs yi itam fàttewuma leen parce que suma waa ji daf may woo anytime maa baax a euh, ma. tuuti waaye euh, waaye animateur DJ DJ. OSS. mu ngoog voilà moo nekk Ndar ah suñu waay la vraiment il m'appelle régulièrement je le salue et je salue tous nos amis de Saint-Louis merci beaucoup Socé ñu ngi en direct ci YouTube euh, ak sunu ay réseaux synchronisés euh, def naa Facebook bi ñu ngi fay ñu ngi fay seetaan aussi. waaw ngi leen di bëgg bu baax a baax waa FB aussi mooy Facebook n'est-ce pas jaa ngeen jëfati kon euh, loolee jëm ci élection yi beneen mbir boo xam ne Alioune Tine la concerné ba tey puisque wax naa sànq ci njëlbeen ne moo def buzz laata moo ñëw sax ci émission objection. Alioune Tine faisait le buzz déjà la veille on l'a aperçu ci euh, kii yu bëri muy présenter des excuses est-ce que information boobu c'était par rapport à à, à quoi benn mbirum xawma bébé boo xam ne présenter na des excuses parce que le ministre euh, lui aurait euh, demandé de pro présenter publiquement ses excuses. Hmm? hmm. mbir boobu man de loolu rëcc na ma ah loolu rëcc na leen yéen kon maa leen gën a informé xaar leen léegi ma génn leen article waaw <laughs> yoo xam ne moi je suis informé H24 ah oui minuit jusqu'à minuit très bien ngi toll man bu ma nekkoon chef du baax parce que à n'importe quelle heure je peux t'appeler te dire voilà y a y a <laughs> ah oui moi c'est boulot sans arrêt non stop on ne dort jamais chez moi <laughs> bon euh, donc Alioune excuse léegi ma génne leen article bi

été placés sous mandat de dépôt. Mm-hmm. Faux euh, avait estimé le ministère de la Justice dans une note rendue publique. Le ministère, après avoir justifié la présence euh, de ces euh, de euh, Cheikh Atab Koli ak deux enfants en tout cas, Alioune c'était de bonne foi qu'il qu'il est vrai qu'il parlait pour l'intérêt général et sans parti pris de reconnaître son erreur et de présenter des excuses publiques. donc la réaction du patron d'Africa Jump Center s'est pas fait attendre puisqu'en effet, ce dernier a reconnu son erreur et présenté ses excuses au ministère de la Justice. Monsieur le ministre, après vérification, je reconnais que je me suis trompé et je présente toutes mes excuses, écrit Alioune mhm. donc histoire u euh, ñaari bébé yooyu ñu waxoon ne dañ leen euh, euh, mandat de dépôt ak yu ni mel voilà loolu moo daw nag ci week-end bi ba ah, Alioune Tine def buzz laata muy jaar ci donc finalement mu présenté excuse parce que ministère de la justice mhm. dafa laajoon Alioune Tine mu def excuse noonu Alioune Tine itam. Euh, wax def lu ni mel. maanaam hmm. génn def excuse. loolu solo la. Hmm? lu am solo euh, parce que xam nga xam nga lu tax. waaw justement parce que moo tax ma taxaw foofu. Hmm. Euh, c'est surtout ci gestu Alioune bi. nit ku dul juum amul Youssou Ndour woyoon na ko. mais fii Sénégal xam nga nag dañu am problème pour. Euh, euh, mm. euh, jéggalu. maanaam nga def kii rek erreur rek nga ne bon je me suis trompé je m'excuse c'est c'est très difficile ici. Mm. nit ki mm. dina def erreur dina la contourner par dix mille kii chemin yoo xam ne il su il suffisait de te dire désolé ñu jàll ci leneen mais dina la contourner contourner contourner contourner. sa chauffeur war la jël si chaque matin mu ñëw tardé au mu jéggalu. circulation bi circulation bi tey dara di dara naa en fait man je ne suis pas censé savoir que circulation kii yow yaa ma war a kii te yow yaa ma war a informer yow yaa war a jéggalu auprès de moi c'est un exemple parmi tant d'autres parce que sénégalais ci boppam moo am problème ak jéggalu euh, lu am solo nga wax xam nga rawatina sax ku yëngatu ci yu mel ne yi Alioune Tine di yëngatu hmm. ak ñun ñi ñuy yëngatu ndax léeg-léeg da ngay jot ci xibaar euh, jote ko ci koo wóolu hmm. te mën naa am kooka da koo jote ci ku mu wóolu rek waaye xibaar bi wérut hmm. leneen mu doon loo xamante ni day euh, day laal say sentiment mm-hmm. laal say yëg-yëg man nga cee àddu wax ci mm-hmm. ba noppi ndekete demewut noonu mm-hmm. yooyu moom fi mu nekk nii képp ko yëngatu ci wàllu euh, communication wala nga yëngatu ci wàllu xeex ak ak yelleefu doomu aadama ni koy waxee ñoom yu mel noonu mën na laa dal waaye bu la dalee ba noppi nag liy wane yow li nga doon def nii ku ko war di def nga mooy da nga yëg ne nit nga doomu aadama ci boppam mooy juum ni nga ko waxee léegi ku xam lépp amut ku matale lépp amut bi nga waxee ne maa ngi jéggulu ci la ñuy xamee ne jubluwoo ci woon dal ci kaw nit wala nga jublu ci yëngalum réew mm. waaye da nga cee jublu woon euh, ñaaw maanaam lu mel mbir wala nga wax ni lii wërta nekk bi nga mm. xamee ne amut nga ne maa ngi jéggulu tooñ moom lu mu rëy rëy rëy rëy mm. maa ngi jéggulu raxas na ko ba mu set mm-hmm. te it ku jéggulu te muy dëgg ci yow ka ngay jéggulu dalaa war a jéggal ñu jàll ci leneen waaw surtout euh, grandeur la aussi ci nit ah ni ñu ko waxee oustaz mais grandeur la parce que xam lii nag raar naa ah mais xam nga ah, ci homme public yi nii nga juum ne voilà reconnaître naa juum naa jéggalu naa. c'est tellement rare de nos jours mooy gàllaaj c'est tellement moom. c'est exceptionnel c'est tellement exceptionnel que félicité Sénégal la ñu nekk nag boo waxee rek ñu am fu ñu la kii kii. nee na parce que yàlla sax yàlla sax noonu lay noonu lay Sénégal tout le monde c'est tout. déggoo ma de. au Sénégal da ngay wax yow man keneen ak keneen keneen ñi lay déglu ñi lay seetaan pour ñoom ñëpp xam nañ lépp donc bu fekkee ne da ngaa wax ci Alioune Tine léegi ñu kii way non mais n'importe grandeur la ci nit ci góor rawatina boo juumee nga nangu ne da nga juum jéggalu loolu dañ ko war a féliciter. waaw xam nga dafa dafa dafa bokk. non dëgg la dafa waroon a bokk ci suñu aada yi. gis nga ñaar moom comme ni nga ko waxee léegi lu jafe la ci euh, en tout cas pour ñu yëngu ci wàllu politique démissionné. Hmm. ci poste <laughs> démissionné la. waaw ak ak ak jéggulu naa nangam ñëpp a ngi koy dégg. Hmm. koo gis muy jéggulu rek xamal nit ku mag la. Hmm. parce que tamit jéggulu même ci diine sax. dafa am foofu boo defee boo defee boo boo jégguloo noonu mm. yow jàppal amal yaqin na yàlla baal na la dëgg la waaw lislaam sax loolu la jàngale mm. kon nag nit ku ne la ah, sañ Mbàkke man de wax dëgg yàlla lii de maa ko wax waaye damaa caa juum kon nag jàppoon nga ne jum ne tey damaa bëgg wax même bu dee a doon mm. a jégal mm-hmm. parce que yow ñëw ñëw nga ne ko jégal mais dara nekku <laughs> euh, wax homme public yi mais suñu ay dund chaque jour ñun ñii bu ñu sincère rek ci lu ñuy wax chaque jour ñu gis dix mille choses yoo xam ne ñun soit war nañ ci jégalu ñi ñu ko def war nañ ci jégalu mais jamais on le fait on passe parce que tout simplement noonu lañ dundee damaa am euh, foofu laay tëjee soose damaa am suma xarit bu baax bu dëkkoon lu yàgg Paris la France xam nga su suñu suñu gars yi parigo yi d'habitude Ablaye Cissé maa ngi lay nuyu suma benn copain boo xam ne dafa yàggoon Paris ñibbisi Ah, nee na dafa noonu comme métro la daan jël fële Paris mu ne xaaral mu jël Ndiaga Ndiaye bi mu ñibbisee Sénégal nee na mu jël Ndiaga Ndiaye sol sañseem bu fort nag nee na foo yaakaar na ne Ndiaga Ndiaye moom comme métro foofu ca Ndiaga Diop wala Ndiaga Ndiaye merci Ndiaga Ndiaga Ndiaye non pas Ndiaga <laughs> mu jël Ndiaga Ndiaye am yéeg nee na ci biir kii bi eh, transport bi jékki-jékki rek am xam nga rek kii ñii yéeg par kii ah. am ku ci yéeg rek dëgg ko nee na daal yu weex tàll nee na naaj naaj yu bees tàq yu weex tàll la sol uh-huh. mu ne noonu day jaay tubaab noonu naan mais il s'est même pas excusé auprès de moi. hmm? et puis il ose me dire que. banque tranquille. merci. tu as <laughs> tout compris. loolu la <laughs> Sénégal bu ñu la fa solo dañ naan la fi nga taal sa tànk yi nag buñ la wax baal ma ne dañ naan la fi nga teg sa tànk yi merci yow maa ngi jàll ngay teg sa tànk yi ci yoon yàlla <laughs> nañu yàlla yokk ñu ngi leen di bu baax di leen gërëmati kon Mbacke jërëjëfati waaw kay ni ko ba suba ak jàmm ba ak jàmm Maodo maa ngi lay sant bu baax di la gërëm jërë ngeen jëf merci mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci ànd bi euh, ak ndekki li émission nandite yi amati mbégte la première émission de Sud FM qui vous donne rendez-vous demain. Toute la rédaction de Sud vous remercie. Tous les sponsors qui nous accompagnent et qui sont de plus en plus nombreux vous disent merci. Merci à l'équipe digitale qui m'a accompagné, l'équipe technique. Diangen Diofati, passez une bonne journée, visez la lune. Salut à tous. À demain. ndox mu ma sëpp maynu teranga bu mat sëpp maynu jàmm bu mat sëpp maynu faj yaakaar ju mat sëkk may nu gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla EDK ak kàppay jolof ci kën boisson bu neex bii di mandamori ayema ak Electronic Corps ak mark climatiseur am bu bees bii di Enduro ñoo leen doon may seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li émission nandite